وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بكي تلسبكتاتري إسلام تي في نيونغي لين دي تدي لين زيارة دي وخني خاو نانفي گج گناو انتروداكسيون japp na ni yeen ñep xam ngeen sabab si muy mbass mi sama borom dogal mu wacc ci aduna bi ñuy ñaan yalla nako sama borom teggi ci kattanam ak mbaxam loolu nga xamanteni dafa andon ak confinement général loolu mo waralon suite bi ngeen doon xaar bobu ba ci introduction bi ñu tambali won ci mborum rew mi di histoire Sénégal senegal a gëj. Euh, ñuy delsi nag tey jii ngir eggali introduction bi fi ñemoon fas yéene waxtaan ak mboolem ñi nga xamante ni ñooy safo télé bii di islam tv ci li ñëpp di xaar muy taarixu réew mi histoire sénégal nag euh, bu màcc jëm ci l'islam jëm ci diine mooy bi ñu soxal ci bu wax histoire Sénégal ci Islam TV mooy taarix boo xamante ni euh, taarix la boo xamante ni dafa màcc am lëkkaloo gu mu lëkkaloo ak diine loolu nag mbokki jullit yi dafay loo xamante ni yomb na yombul yomb na ci wet ndax réew mi ñu yàlla dogaloon ñu ne fi jóge ci seenum réew ñëw teg ci loxo muy tubaab yi ñoom bi ñu tegee seen tànk ba tey ba bi ñuy ñibbi bi senegal amee indépendance dañ doon bind xew-xew yi fi xew mag ñiñ fi fekkoon fekkoon ñu nekk ay jàngkat di boroomi xam-xam di sëriñi daara ñenn ci ñoom dañ doon bind mboorum réew mi di fi teg waaye itam ñenn ci mag ñooñu nga xam ne tubaab bee leen jëlal boppam formel leen boppam jàngalal leen boppam ñooñu itam dañ leen a sas ñuy bind di ci teg loolu moo tax yomb na ci wet googu waaye yombul ci wet muy euh, mbiru mboor dafay mbir moo xamante ni bu ko ngëm-ngëm dabee mu yàqu bu ko ay sentiment dabee mu yàqu bu ko say gis-gis personnel dabee mu yàqu day mbir moo xamante ni moom xamul ngëm-ngëm xamul santiment lim xam rek mooy delloosi woon delloosiwaat li woon démb euh, léeg-léeg nag ci Afrique soowu jant muy Sénégal ak réew yi ko wër euh, mu doon jafe-jafe lool ci ñu teg ci loxol nit ñi loo xam ne lu ñu mën a téye la lu jëm ci wàllu mboor liko ko waral mooy dañoo génnewul mbirum ngëm-ngëm ci walu histoire bo démé ci réew mu melni ni Italie ñu mën la jox personnage bu toll ni ku melni Marco Polo nga xamni mi ngi judd ci ay ati 1200 nangam nga mëna dem Italie ñu jox la mboram jox la histoire am détail par détail bi mu juddo ba bi mu faato ta dara du ci réer boobaak tey di juróom ñetti junni juróom-ñetti téeméeri at manam jurni at yu mangi tuuti nga ñew Sénégal fekk fi ben figure historique bo xamanteni ni bi mu fi jógeeg léegi téeméeri at yi matagul te ñoo tek ci sa loxo lo xani ni looy lay doon liko waral moy ngëm-ngëm yi ñoo dab mbor waye nak paré nañ inshallah allah ak mbooleem borom xam-xam yi nga xamante ni ñooy gëstu ci wàllu histoire ci réew mi pare nañ pour def benn sacrifice ngir les générations futures mën a am luñ téye ci wàllu histoire Sénégal euh, ci jataay bi ñu amoon ak yéen ci bi passé ñi ngi doon wax ci lu aju ci fan lañ mën a jëlee xam-xam boo xamante ni dañ koy mu nekk lu concret lu ñu amal jëm ci walu mbor jotoon nañ ci indi ay tombe yu bari tay ji nak dañ leena bëgg indil indil euh, Manam ñan ñoy ñi nga xamanteni ci Sénégal demb ñu fi bind ci lakku tubab ak ñi bind ci lakku arab Lo xamanteni teni day jëmmal mborom réew mi Manam taarixu réew mi ñan ñoo ci bind ci ñi bind ci tubaab ak ñan ñoo ci bind ci ñi bind ci arab ak seeni téere ku ko soxla bëgg ko am fan ngay jaar loolu dañ ko def ngir jàppale ndaw ñi nga xamante ni histoire soxal na leen ngir ñu mën am ci luñ tiyee xam dañuy tàmbalee rek ci ñi nga xamante ni maanaam ñoo fi nekkoon démb di magi démb yi doon ay sëriñi daara di ay boromi xam-xam fekke njonkanaayal tubaab bi fekke bi tubaab bi yilif réew mi dund ci époque coloniale fekke fee yu bari yëkkati seen xalima bind ci mboor mboorum Sénégal te bind ko ci kàllaamay arab loolu buñ ko dee wax Sénégal ki ñuy jiital mooy Cheikh Moussa Camara bu Gàngel góor gi Moussa Camara dëkk Gàngel ci premier initiateur yi initié taarixu Sénégal ci walu lak arab ci la bok bind na ci ay téré yu dul ben du ñaar yo xamanteni lepp dafa jëm ci histoire Sénégal ci mborom réew mi téere bi ci gëna a siiw gën ci ëpp solo nga xamanteni ni booye ni marja la référence la bu mag ci histoire Sénégal muy zuhurul basatin fi taarixi sawadin téere la boo xamante ni macha allah ñu ngi dénk ndaw ñi ak jàngkat yi ak ñi mboor soxal ñu dellu ci téere boobu yi léeg-léeg nag ñu jaawale kook ñu jàpp ni maanaam day téere bu am ñetti tur dafay téere boo xamante ni ñetti tur la am léeg-léeg ñu bare bari jàpp ni ñetti téere yu bokkul waaye fekk fekk boobu njuumte moo ci am ñetti tur yooyu yëpp benn téere la ndax daf ko tudde zuhurul basatin fi taarixi sawadin tuddewaat ko yet intisarul mawtur fi zikri qabaili fuuta tour kon téere boobu itam benn téere bi la ba tey dinañ ko tuddee ixyaau ma afa wan daras min ulumi taarixi sudaani wan tamas ñetti tur yooyu yépp benn téere dong lay ishaara benn téere lay jëmmal kon bu kenn jaawale japp ni day ñetti œuvre benn œuvre la gor gui Moussa Camara jangale ci lu ama ama am solo ci taarixu Sénégal ci xeet yeeg ethnie yeeg waaso yi fan mooy seen origine bañ ex ci delta du fleuve ba tasaaroo ci Sénégal doon ay xeet ak i waaso téere bu am solo la jàngkat boo xamante ni yaa ngi yëngu ci taarix mënoo koo Euh, bu fekkente ni amoo ko itam euh, mën ngaa dem ci tatrisu dibaaj bu euh, Cheikh Mouhamad Baba at Tombouctou boobu itam daanaka lu bare bari góor gi balluloo na ci téere boobu wala ci téere bi nga xamante ni moom lañuy ñuy wax taarixul fattash boobu itam ku ci dellu da nga am lo meuna jàpp donte ni nak doyul wolif ngay am téré bale nga xamanteni mom la tuddu kon Cheikh Moussa kamara téereem bobu bàyyi len ko xel bu baax yéen ñi mbor soxal waye itam bokku na ci téereem bi mu tuddé ashal ulum wa atyabul qabr fi sirati alxaaji Omar téere boobu yi moom itam ab jang kat bo xamanteni tarikhu rew mi soxal na la bokk na ci yi nga xamante ni mënta ñàkk ci sa kàggu ndax boo déggee tur wi dangay ngay defee ni biographie Cheikh Omar la ciy wax dëgg la moom la ciy wax ak i jaar-jaaram ak i jihaatam waaye nag li ci ëpp mboor la moo xamante ni dafa général soxal mboolem réew mi bokk na ci téereem bi nga xam ne moom la tuddee aktharu raaxibiina fil jihaad mimman yaxtaaruuna zuhura wa mulkal bilaad wala yubaluna biman biman halaka fi jihadihim min al ibad tere bobu defena ni tour wi rek solo si mu am japp na ni tour wi rek tegtale bu baakha baax solo si nga xamanteni tere bobu am nako ko ndax mi ngi ciy leeral ci jamono bobu nga xamanteni jamono jihad la ju tasaro ci rew mi ñepp di jihad ku ne tal jiar ca fa nga nekk di xex mu ci leeral ni ñu baree bari ci yooyu jamono tànn giñ tànn jihaad ah li ci ëpp nag ak peeñ dong akuk pal lañ doon wut seen yoon nekkul ca bakkan ya cay faatu noonu la tudd téere bi aktharu raagibiina fi ljihaad mimman yaxtaaruuna zuhuura wa mulka albilaad wala yubaaluuna bi mën halaka min al ibaad boobu téere moom ëpp naa bañ a am jàpp naa ni jàngkat bu nekk soxla na ko am ci kàggoom ngir bu bëggee dellu ci mboorum réew mi euh, bokk na ci ñi bind ci histoire Sénégal itam euh, wala boog mboor moo xamante ni soxal na Sénégal bu baax a baax muy docteur Amar Samb docteur Amar Samb ci ñi bind ci arab téereem boobu mu tuddee al adabul arabi as sénégal yi booboot ci téere yi nga xam ni mënta ñàkk ci kàggu taalibi almu bi nga xamante ni mboor soxal na ko ci la bokk docteur Amar Samb bu Kébémer ñaari mu jallat la nekkoon na ifa rahimahullahu rahmatan wasia niki noonu Baye Cheikh Touré Baye Cheikh Ahmed Tidiane Touré di doom ci Serigne Hadi Touré moom itam téereem boobu mu tuddee taxriirul aqwaal fi taarixi Sénégal téere la boo xamante ni marja la delluwaay la référence la boo xamante ni képp koo xam ni mboorum réew mi yitteel na la bokk na ci téere yi nga xam ni mënu koo ñàkk waaye itam bokk na ci Ahmad Jamal Wuldu Hassan Ahmad Jamal Wuldu Hassan di ab mauritanien ndax xam ngeen ni daanaka euh, buñ mosaan a wax Soudan occidental Sénégal Mali ba lenn ci Mauritanie da ciy dugg nga xam ni mennum réew la woon. laata ñuy séddale Afrique ni ko tubaab yi séddalee ci conférence de Berlin daanaka booye boo ni mennum réew la woon moom itam Cheikh Ahmad euh, Jamal Wuld Hassan téeréem bi mu tuddee xarakatul imam Nasiruddin wa manzilatuha min taarix al islam fi garbi afriqiya téere boobu képp koo xamante ni événement bi ñuy tuddee le mouvement tuub naa nga xamante ni moo jotale woon ceddo yi ak sëriñ si sëriñ si bëgg kut ka kut samp lislaam mu taxaw ay drapeau féete kaw ceddo yi lànk loolu mu jur ab xeex bu metti ci diggante ceddo yek sëriñ si téere boobu yi bokk julli ji ku ci dellu da nga ca fekk ni da ni lii ab taalibi almi bu mboorum réew mi soxal mënoo ko ñàkk waaye itam bokk na ci téere bi nga fi téere bobu itam japp na ni ci yis mënta la bok kiko talif di Muhammad Bello ibnu Osman fojo infaqul infakul fi tarikh bilad tikrur moom itam ñi mbor soxal buñ ca dello dañu fa fekk lo xani lu lu len di amal solo lay doon ñi nak polarek as chomp la rek suñ somp ci ñi nga xamanteni Eh, ay sëriñ lañu woon di boroomi xam-xam di ay duaat ay wootekat yoo xam ni sot nañ seen xalimba daal di bind ci mboorum réew mi ñooñu nag ñenn lañ rek ñoo xamante ni daanaka booye boon yi bu doon géej la dañ caa tànku tuuti ñi bind ci histoire Sénégal te dëkk ci réew mi ak ñi dëkk dëkkul ci réew mi ñooñu mbooloo lañ moo xamante ni tey benn jotaay mënuñ leen cee lim ñoom ñëpp bu fekkente ni nag euh, dañoo delsi ci ñi nga xamante ni dañuy bind ci tubaab dañuy bind ci kàllaame tubaab ak yi nga xamante ni asl ba arab la waaye dañ ko mujj traduire te gisuñu asl ba nga xamante ni moo nekkoon arab euh, kiñ ciy jiital mooy euh, Yoro Jaw Yoro Booli Jaw ndax dafa nekkoon dignitaire ci waalo ñu jëloon ko Faidherbe bu jëloon ko ci bi mu créé école am boobu mu tuddee woon école des otages ci 1855 jël ko mu nekkoon doomi kilifa mu daal di koy dugal école moom Yoro Jaw mu bokk ci deuxième promotion ci école boobu école boobu di école des otages tubaab yi jël ko di ko liggéeyloo mu nekk ci seen service daan bindal tubaab yi ay tontu ak i tarjuma moom ci ndigalul gouverneur bind na maanaam mbooleem taarixu nit ñu ñuul ñi nga xamante ni ñoo dëkkee Afrique soowu jant tàmbalee ko ci seen six migration yi nga xam ne mu ngi koy expliquer ci fleuve Nil ba nit ñëwee Sénégal muy les cahiers de Yoro Diaw ñu publier ko ci les années 30 kon Yoro Booly Diaw nga xamante ni eh, maanaam anthropologue la woon historien la woon waye itam nak nituk diine la won ku diine ñoroon lool ba lool xam nañ ko ci mom ba bi mu faato ñu ko sul xumma mom lañ jëk sul fofu ci xumma defal ko janaza islaamiya liko jitu ñepp dañ mar boo xoolee baayam Farapenda Aram gayi bi mu faato dañ ko mar manam dañ ko sul taxawal ko dañ ko sul taxawal ko ndax eh, l'islam yaatu na ci réew mi lu bare bare bari ba tasaro teewul mag ñi ñenn ñi dese ak ceddo di mar seeni néew di mar seeni seeni néew ba kiñ mujjee mar ñu xam ko ci 1906 mu nekkoon chef de canton ca Ndar chef de canton Waalo euh, ñu ngi ko suul njëllaxaar te dañu ko mar kon yore jaw moom lañ dëkk defal janaasa islaamiya foofu ci armeel yi ne woon ci xumma yoro booli jaw téeréem yooyu nga xamante ni moom lañu ñu publier ci en 1930 moom Yoro Diaw ku ci dellu danga am lu doy sëkk ci wàllu mboor ci ñiy bind ci tubaab tey liir ci tubaab euh, ki noonu Siré Abbas Sow Siré Abbas Sow Fuuta la dëkk di boroom xam-xam moom nag téeréem arab la bindoon moom Siré Abbas Sow arab la bindoon waaye tradition bii fi nekk bu français bi daanaka ci moom lañu am accès ci moom muy euh, téere bi ñu tuddee cronique du Fouta sénégalais nga xam ni noonu lañ ko tuddee dañ ko traduire chronique du Fouta sénégalais bu Siré Abbas Sow taalibe alimu boo xamante ni yaa ngi yëngu ci wàllu mboor mënu ko ñàkk ki noonu Tanor Latsukaabe Tanor Latsukaabe la vie des Damel livre boobu nga xamante ni moom itam ci histoire du Sénégal la ko taalif bokk na ci yi nga xamanteni talib taalibi ilmu boo xamante ni yaa xam-xam tay jang ci tubab mënoko ci sa kaddu ci sa euh, bokku na ci le gouverneur wala bok l'administrateur colonial ki ñu doon wax Alexandre Sabatier Alexandre Sabatier le Sénégal sa conquête son organisation téeram livre am mu le Sénégal sa conquête son organisation beaucoup na ci téere yi gën yaatal ci walu ci walu mborum Sénégal waye beaucoup ci Amadou Ampaté Bâ Amadou Ampaté Bâ écrivain malien du ko bindu lu bare bare bare bare ci taarixu Soudan occidental ci diggante Mali ak Sénégal bindu lu bari ci Cheikh Himallah hamalisti yi ki nga xamanteni mo sos firqa xamaliya ñu nan ko ci ximallah daanaka lu way am ci mom ci xam-xam lu bare bare yang ko jele ci œuvre amadou ampaté ba terem mu tuddé vie et enseignement de tierno Bokar le sage de Banjagara. téré la bo xamanteni bokk julit yi euh ku mboorum rew mi yitteel bokku na ci nga xamanteni bokk na ci itam ñi bind ci français bokk na ci Omar Ba la pénétration française au Cayor téere la boo xamante ni macha allah am na solo gépp am solo moom itam taalibi al mu jàpp naa ni mënu koo ñàkk ci kàggoom euh, yi mbokki jullit yi ab sélection la bu defoon ci ñi bind ci tubaab ak ñi bind ci kàllaamay arab te jëmmal mboorum réew mi donte ni nag am na ay téere taarix yu fi amoon yoo xamante ni mag ñi juñu nañ ñu ko waaye fekk ñu leen fi réer na completement amatuñ ci benn accès bokk na ci taarixu tafsir boggel Ahmadou Samba nekkoon boroom xam-xam Fuutanke bokk ci yirlaabe yi bind lu bare bare bare ci taarixu Sénégal waaye malheureusement téereem boobu amatuñ ci benn accès réer na completement bokk na ci itam Balla Faa Xujja Jóob Balla Faa Xujja di doom yi sëñ Mataar Ndumbe Jóob moom itam amoon na taarix boo xamante ni bindoon na ko ci lu aju ci Kajoor ak Njàmbur muy téere taarix bu mag nga xam ni daanaka mm, bu doon jamono yi mat na benn tom bu mag wala mu ëpp ko moom itam ci téere yi nga xamante ni Eh, amatuñ ci benn accès wala boog ñu bare bare amuñu ci accès boog jombul xanaa mi ngi ci ay loxo boobu itam gisatuñ ko mu bokk ci metti ndax xam-xam yi tol noonu buñ ko sàgganee ba ba mu réer loolu mën naa jur maanaam musiba kon yooyu bokki jullit ci ay téere la yoo xamante ni yenn yi tubaab la comme niñ leen ko waxee ak yi nga xamante français la euh ak ki nga xamante ni arab la laa bëgg a wax yooyu ay téere la yoo xamante ni ku ci dellu danga nga fa fekk loo xamante ni lu doy sëkk la ci wàllu mboorum réew mi euh, gannaaw loolu bokk jullit yi xam naa nag euh, ñu ngi ñuy signaler heure bi waaye nag di leen jox di daje ci ayubis yi di ñëw ci maarakatu bu ngoy maanaam xare bu ngoy bi nga xamante ni moo doxoon ci diggante euh, julliti réew mi wala sëriñ réew mi ni ko historien yi di waxe te euh, almaami abdul Qadir kan jiite woon leen ñu xeex ko ak dammel teeñ amari ngoone ndee la ngir njongaan gi doon yongaan sëriñ si di leen rey ba rayoon euh, xaalima laamin saar ca jama ba loolu tax sëriñ si takkatoon ak xeex ak moom xeex yu metti ba ya ca xew yépp xew ci mbokk yi ñu ngi bind ci suuf di ko envoyé di sàkk ku leen indil taarix boobu nu mu demee ak récit oral yi ñu dégg te demeewut noonu ak ña ko fekke woon ku mel ni Mongo Park bind ci yooyu incha allah ñu ngi leen di jox dig daje ci semaine yii di ñëw ñu indil leen taarix bi nu mu demee lépp ci kàttanu yàlla ak mbaaxam di leen tàggu. di leen ñaanal tawfiix di ko ñaanal suñu bopp di ñaan mbas mi yàlla na ko fi yàlla jëlee di leen wax itam ni émission bi incha allah dana am ay nouveauté ndax éphémérité mois yi dinañ koy indi di leen tàggoo salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.